mbokk internet Limametti ñu ngi leen nuyu di leen dalal di leen remercier comme toujours ci topp bi ngeen ñuy topp dañuy ñëw ak ci actualité actualité bi nag bi ngi concerné ki nga xam ni moom mooy Hissène Habré nekkoon fi président bu Tchad ko fi nga xam ne moom mooy Sénégal tëjoon ko fële nga xam ne moom mooy prison bu Cap Manuel waaye nag démb ci ay booru 19 dañu ko daal di génnee yóbbu ko fële nga xam ne moom mooy këram ci Almadi mettre ko fa en résidence surveillée résidence surveillée bi nag dina doon ci diiru 60 jours loolu nag ci xeex li nga mooy coronavirus ngir aar ko ci jàngoro jooju ndax ñëpp xam nañ ne kii di président bu Tchad bi di Hissène Habré yaramam dafa sutante woon moo taxoon ñu daal di koy jël décision yóbbu fa li nga xam ne moom mooy këram pour une durée de moom mooy coronavirus bi ñi nga gis ne ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yi ñi ngi xeex bu baax li nga xam ne moom mooy feebar bi di covid 19 di moytu bu baax mu daal dal même fële nga xam ne moom mooy prisonniers yi parce que yi aussi ci askan wi lañ sa notification bu leen ko fàtte moo leen di mën a permettre ngeen mën a xibaar yi foo leen mënti toll ma leen di jox rendez-vous beneen yoon ci biir limametti point com ak yeneen i xibaar